julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di samay ñaari waajur di santaat samay ñaari waajur surtout sama yaay sonn na ci combat bi trop trop trop trop maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla saxal sama kanam maa xam li ma bëgg ci moom yàlla ma ko yàlla defal di sama papa bu baax di ko santaat tamit ndax sonn na ci combat bi lool lool lool di sant samay tante yi nekk lu mel ni tàngoone sama tàngoone gasama ñoom Tansu Ndiaye ak waa golf yëpp bàyyiwuma kenn ak waa Géejawaay ak ñi may jàppale bu ma limee damay juum quoi man combat bi bëriwu ma woon pour pour man lii nekkul woon pour man de pour ñi nekkoon samay supporters di werenteeg mës na am wala mës am dana leer du leer te yàlla dogal na ko mu leeree nii dama ciy santaat yàlla bu baax gën a julli ci yonent bi sa alayhi maa ngi delloo yàlla njukkal bi yàlla xam ne làmb ji. billaahi wallaahi watallaahi boo gisee tey làmb ji ni mu demee ak mbooloo bu topp ci man ak hélico yi nga xam ne dañuy ñëw tey stade pour yëpp jubile xam ne làmb ji tey samay supporter la ba may dugg ci làmb ji tey dama jooy ba may génn sama kër dama jooy ba may dugg dama jooy. la bi sama yaay moo ma jooyloo beneen bi dama dem ba ci biir stade ba ni muy waaj a duggee. benn xale bu ndaw bu tollu kii dafa ma gis dafa daw jooy non Balla Gaye numéro 2 yàlla na la yàlla may ndam xale bu ndaw ma man dama bëri soppey xale ak ay mag ay koy ndaw mais samay soppey ñoom laay waxal chaque jour ñoo tax may rente tey ak suba ak ngoon waaw Modou kenn ku nekk xam ne champion la lamb la te lu ñu bëre tey bëre mel ni gëj ay ñaari xale lañ yàlla nag mooy boole yàlla mooy may ndam man mi mu may ndam maa ngi koy sant ba di gërëm Modou Lo maa koy encouragé te xam ne xale la dama ko fenn suma morom la e moo xam ni mu bëgg combat mi nekk ci kanamam yàlla na ko ci yàlla defal ay ndam yu bëri bëri làmb ji nag bëri na tension mais tension bi yëpp yàlla def na ci jàmm te encouragé supporter Modou ay sama supporter ñun ñëpp benn lañ Sénégal la mais làmb ji bu ñëwee tey kaf la ak wax wax mooy neexal làmb xam nga mais jë man Balla Gaye 2 ma doon wax yëpp jubluwuma ci pour iñaane mbër bi wala may bëgg rey mbër bi parce que tey bu ko bëggoon rey dina am victoire mënul nekk xaw ma nu ñuy rey nit mais donc tamit yàlla moom gëmul nelawul yàlla mi yor ay mbiram tey séddale yàlla nañu ko yàlla boole ñëpp ak sama supporter ci kàttan sa